ñun ñoo ko seede fekke itam ñu gis muy jëf da daan jël kaalam takk ko ci ndigg li mu tarbiyu baayam Ceer Muhammadul Hadi mas naa ñëw ñooro ci benn jamono Ceerno Muhammadul Hadi yàlla def ma boole woon moom sama xarit la lool ne sama diggante ak Mouhamadul Haadi gëmtaane la lu doy waar la ñëpp ñu nekk ca Mali xam nañu sama diggante ak Ceer Mouhamadul Haadi jamono jooju ñëw nañ ci kër gi fekk taalibe yi nag ñu ngi mere Amadou Haadi mi nga xam ni mooy taawu Ceer Mouhamadul Haadi mu ni ko ah déedéet moo lu muy tekki mooy mag lii lu xew a ah, mu ni ko Thierno da ngay laaj Amadou sama Amadou rek dana la wax lu xew ma laaj amadu ni ma mais taalibe yi dañu wax ni naa dindi alal sama pap bi ma leen di jox man nag ma dindi alal sama papa di leen ko jox ndax sama papa joxuma ci ndigal bu ñu bëggee nañu dem wax ko sama papa bu ma joxee ndigal ma dindi lépp ma jox leen bu ma joxlu ndigal même lu mu métti métti lu ma joxe de mu ni loolu la rek. kon nag Thierno Bachir mu ni taalibe yi yëpp woo naa leen réunion dama leen soxla ma ma jaar leen ca kaw ndax ñu ñu mën a wuy si mbooloo mi dama leen dafa leen nax ca kaw ndax ñu mën a ñëw ci suuf nag mu ngi yor balam boo xam ni mu ngi ko téye ma defal leen ngelaw bu sedd ci kaw ndax ñu ñëw man mi ni leen hande mami yendu Amadou hande danaa ko xas ba mu juddoo ak tay xas bi ma ko nara a xas du du ko dégg ah maa ngi waaw kenn ku ne waawaa nan dem lii kay buñ ko amee dem tey kay ah, tey tey nan du ñu doon nangu may tey de dana dégg loo xam ne lii wala dana maye tey kam même ku buggul woon ñëw sax mu ñëw ba ñu toogee ca mbooloo ma ah, ma ni leen nag salaamaaleykum mbooloo mi nag yéen ay taalibe Ceerno Haadi ngeen da ngeen ñëw fii di taraabuya Ceerno Haadi mooy seen murabbi mooy kileen di yar ngeen di sàkku barke ci moom ndax bu ngeen ñubbee ëllëg ngeen mën a am sarit ba ngeen yóbbaale ca kër ga léegi maa ngi laaj Amadou lu tax muy xeex ak yéen moom moo leen war a topp eh, mu jox leen cër ndax taalibe way juram nge ah ñu ne waaw waaw Ceerno wax nga dëgg mu ne Amadou yow tam lu tax ñii war nga leen jàppee sa jëmm car Thierno Mouhamadul Haadi ma wax wax wax mu ne papa boo ma joxee ndigal ma wax mu ne ah loolu moo ñu fi indi wax ñu fi indi bëgg nga wax dëgg. ñoom it ñu wax dëgg fitina bi fi mu fi mu féete rek ñooñu dindi fitina bi mu ni pàpp man de bu tool xëyee man ak ñoom ñooy xëyandoo bu rooti ndox jotee man ak ñoom ñooy yor paan di rootandoo bu fekkee rendi jur gi de jot na ak yenu yàpp wi lépp man ak ñoom la lépp lu ñuy liggéeyal sama way jur daal waxuma jiitu naa leen ci de waaye maa ngi ànd ñoom di liggéey benn mbir nag ba sama papa nag jox na ma caabi magasin yi mu ni naa ko wattul magasin bagage yi doylu na ma jox na ma léegi nag ñoom ñu ni naa ubbi magasin yi bare na du jeex ne kiimiyaaw fa ne lépp loo jël rek yàlla wuutalaat fa leneen Ceerno Amadul Haadi noonu la ko yàlla maye woon même gétt ga bu ñu xëyee ren di gétt gi ba mu jeex boo boo yeewoo suba bu ngeen ñëwaatee da di fekk mu feesaat del magasin tam noonu loo fa dindi rek boo fa bagage yi tam noonu yàlla nag moo xam woo yoo yàlla mayoon na ko Mouhamadul Hadi jagleel na ko ko itam léegi nag man itam sama papa joxuma ndigal ma gindi ma jox leen loolu de moo boole mu ni leen ah yéen li wax lu ngeen ci xam Ahmad li mu wax noonu la li mu wax li noonu la ñu ne waaw waaw man nag léegi rus na man nag léegi rus na merci miin ko njang mi li ma daanu ci moom man de rus na yéen alal Ceerno Haadi mu ngi ko ko dénk doomam est-ce ko est-ce que yow mii boo maandu woon a nga dégg ndigal ceerno adi tarbinɗa nga ak li nga tarbiyu so tottima alalam nan ko ko dencal ha o wima mu ni le indil ma alal bi ina na ci yow nga dindi alal bi a waynaaki <coughs> mu ni Thierno batu fu si wax ji jeex na nee na kooku liggéeyal na bàpp de bu amul xam-tam xiitam nitu gan xam-xam yi tey eh, ñu ko wër de biir Mali kenn la de papam magam nijaayam kaddu Amadou rek bappam li ko ñaanaloon loolu la um waxoon naa ko ca halwaar man yéen njabootu Cheikh El Hadj Omar góorgóorlu leen de képp ku ci deful de nii Amadou def bu sa papa demee ëllëg. da nga jeexaatu ji da nga wari de da ngay dem ci tool yi di jeexaat waaye doo am gerte gu baax de képp ku def ni Amadou def ak njaboot defal ko way juram ba mu wér ci moom yàlla du la rusloo ëllëg mukk loolu wax sa jamono june dama koy wax njaboot gi xam naa nag ñi sant taal ne alhamdulilah xam naa ni seen leer tàng na lool tàng lool bu nit waxee lu mel nii rek amaana ñu defe ne li mu wax da leen di xas déedéet bu ngeen seete ci waxu yàlla ci waxu yàlla ak waxu yonent bi dama leen a dimbale ñu wàllu woon yéen onon sukaaɓe ɓe tiinno ɗe gorgorlu leen jannga leen surtout Cheikh Alhaji Omar bu jàngul gàcce la ci moom jàng leen bu ngeen jàngee ngeen topp seen way jur bu ngeen toppee seen way jur ngeen ngeen yombalal ngeen ngeen suufeel seen bopp ci mbindeef yàlla yi ngeen maslaha ak ñoom loolu bu nit defee loolu ngay setu Cheikh El Hadj Omar doon ñàkk reer de jarul sax lay dem di ci kurus turu yàlla jarul defal lii wala li la góor wax rek jàng leen ngeen topp seen waajur ngeen yombalal mbindeef yi ni ñu jotoo ak yéen ngeen maslaha ak ñoom jeex na ku ko def ci njabootu Cheikh El Hadj Omar yeew yaay yaay kooku aan woni on noon o wi on tin nañu góorgóorlu bu baax ah, man li ma doon ceerno wax ceerno li mu doon wax loolu rek laa leen di wax loolu tam alhamdulillahi bépp njabootu Cheikh El Hadj Omar ñi àndoon ak Thierno Seydou Nour Cheikh Omar kenn ku ne ca ñoom gis ngeen am na lu ko yàlla defal ne papay Thierno Mountaga Cheikh Omar Mountaga Daha ah, dañ doon wax ni jàngul xamul dara sax waaye ah. ah. soo soo yennima tan ndemayi bu la xase rek den lépp lum la wax du fanaan allah waxam du fanaan allah ceerno yaaya nag mos na ceerno yaaya ba ceerno Richard Toll mos na ñeme benn yoon eyi suusde reedi mu ñeme daal benn bés daal mu ñeme lool mu am lu mu wax ci Cheikh Oumar Mountaga Daha man de même li mu wax bu fekkee ni xam naa ko man ñemewu ko wax mu ni Cheikh Oumar Mountaga Daha bu mere ne al arsh sunu borom bi day yëngu eh. al arsh day yëngu bu ñaanee foofu foofu kun ah, yaa moo ko wax du nga koy wax ci gàmmul yéen fekkee ngeen ñu bari ñu ngi ci mbooloo mi fekkee nañ ko murid bu meree al day yëngu bu ñaanee foofu kun fa yakun lay doon gàmmu Louga man nag maa ngi sant yàlla sant seen wayjur Cheikh Omar Mountaga Daha bi ma yàlla indi yàlla boole maag moom Thierno Seydou Nour Cheikh Omar ni ma topp ko bul xool kàddu kenn bul dégg kenn kàddoom rek e ak sama kàddu seen papa nag ka ka gënoon a weex ci àddina amul ci àddina amul soo mar mu dëkka daal we ku ko gënoon a weex xat amul ku la gën a nekk tam ku tabe ci àddina amul ñaar yooyu yëpp ci yooyu ci ay meloom la mën joxe ñekk lekk loxo bi ak lu mu am day joxe rek mak mos na fekk benn bés ñu ngi añ ne ndab li bare lool mu ni sarax leen ma dànq benn dànq ngeen sarax ma benn dànq mu ni ko ah déedéet yow itam dañ la war a xajal kay ci ndab li bëgg dugg ba nga mën dugg mu ni déet bàyyi rek amal lii sarax leen ma dànq loolu barewul sëtu Cheikh Umar bu koy def barewul de ñu bare ci sëtu Cheikh Umar yi amee seen ndab ci biir la ñuy nekk ñuy seet sax mbaa kenn ñëwul mbaa kenn ñëwul na seen baay Cheikh Daha noonu la mel Hadi noonu la mel Alaji Seydou Nour Cheikh Omar noonu la mel ah, Daha noonu la mel fanweeri ndab fanweeri doon def ci kaw ci bifi bi boobu jamono oto sax amul barewul saxaar rek bu saxaar bi ñëwee miskin yàlla bu wàcc Louga yëpp dem leen demal kër Mountaga Daha boo ñëwee fekk ndab yi rang sa ma am ma noonu la doon def sa turandoo Ceerno Mountaga Ahmed mu Ceerno Mountaga ci Segu noonu la doon def ba Lamine Nuuru ba Labal Lamine moom da doon dem ndugg ci fukki ndam ñaar fukki ndam bu ñëwee mu ni gore togg leen miskin yi ñëw lekk Ceerno Muntaga mi mucc même hôpital yi da leen doon yóbbul añ um, kon nag kon njabootu Cheikh Rajo la gis ngeen lii ci seen bët seen ay waajur lii lañ doon doxale bu ngeen ñëwee ngeen jël xaalis ngeen def ci seen poos lekk jox leen kenn mu lekk nga ne nga ne na ngeen am turu yàlla na ngeen am istijaab na ngeen am mbooloo jamais de la vie jamais au prix que la jamais du am mukk góorgóorlu leen neexul nag weex na xat neexu leen neexu leen waaye man nag maa leen ko wax baayu kii baayu kii mos na wax li Cherif wax mu ni Bachiru sama rakk ko ku toppul kenn du ko topp mi meeɗa ɓornade sol dalla fu muy dox moom Cheikh Mountakha nag wala mbaxane o wi cheikh miyam mu ni Basiru Samarak an a yow ɓorno solal sa dalla yàlla moo solal dalla waaye ma xam ne rek daf may nax tarbiniɗo te tarabiyu noon mbatta du noonu ngay def ma bañ man damay téye samay dàll e ak samay mbaxane ma ànd ak moom yore téye ko sama loxo yéen ñëpp gis ngeen ko ci seen kanam la woon mais alhamdulilah li ma toppoon ci moom mu ni ma sama rakk billahi alladi la ilaha illa huwa jànguma de taruma de feruma tuut as tuut laa jàng li si des ma bañ sam pap door na ma dóor bu ne waaye mu bind ci sama làmmiñ lépp loo wax ca yàlla ceerno Muntaga Daha mu ni ko man may garanti loolu li waral loolu ɗum saabali ɗum hmm? loolu moo tax loolu loolu moo tax ba mu demee ci fuuta ba mu demee fuuta xeex yi bare xare nde heewi musibbaaji ma musiba yi moo waddi fof ku mu ku mu ku mu xeexal rek ëllëg sa ëllëg ñu suuli la ñu suuli la ku mu defanteeg képp ku mu jàkkaarloo defanteeg yow rek bu ëllëgee ñu ñëw jooytu ko. Baba Seydou Baba Seydou. Eh, Cheikh Oumar ma ngay jeexal Fuuta de. loolu moo tax Thierno Seydou Nourou mu ba tere ko dem toog fili fa la toog rek buntu kër gi heure boo ñëwee fekk Cheikh Omar Mountaga daa ci buntu bi mu mu ngi jaaxaan di xoole yéen ñëpp xam ngeen loolu képp ku mar si koo xam Cheikh Omar Mountaga daa foofu rek loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin Thierno Seydou Nourou Cheikh Omar képp ku fi ne ci njabootu Cheikh Al Hadj Omar moom moo la jëmbat galaw yàlla ak yonent bi ak Cheikh Tidiane ak Cheikh Al Hadj Omar ak Bakr Seydil Hadj Malick sa sëtu Cheikh Omar yii yëpp ki nekk ci addina bi tey koo dégg ñu naan diw Seydou Seydou Nourou moo la jëmbat ci loolu kon nag. ñun bu ñu sunu ay wayjur du bañ leen de waaye ku la dimbale ba nga mën a am reer <laughs> waraloo koo fàtte de booy tudd war nga ko jikkee booy mujjee war nga ko mujj képp kala gonda do njabootu Cheikh El Hadj Omar fii ba tànku Cheikh Omar fu mu yem ci dundu Seydou Nour Cheikh Omar forcé na nga jàngi. mu sanni la allah nga nekk tumaranke ba nga am dara loolu moo fi nekk moo fiy dox te mooy jamono ji kër guy yëngu fii tey tat muy dóor ay mbagg du Cheikh Umar bu mag de alaaji Seydou Nour Cheikh Umar kon nag góorgóorlu leen yàlla na yàlla taxaw dimbali leen yàlla na yàlla defal barke yàlla na yàlla dolli sutura papataal nag li ma waroon a wax Cherif wax na ko man wax naa ko sama xol sedd na moo moom wax naa ni boo ma toppee fi ma jaaroon ak sa baay doo ko mën a def mukk ci àddina te ñaanu ma la nga jaar foofu ndax xam naa naqari na lool ku dëgg sawara dëgg xalu sawara ba tànk wa ñor mu muñ ko ba tànk bi ñor xomm yëgatul tàngoor wa bu la waxee safara tàng na doo ko weddi war nga koo gëm jërë ngeen jëf yal na leen yàlla dimbale taxaw leen yal na yàlla baax ci yéen yal na leen yàlla sotti ci barke li ma wax yépp nag maa ngi ànd ak sama xaal nag dara soppeeku ci man bu deen dem ëllëg ngeen ni ay Thierno de li mu Thierno tey dafa dafa dafa tey dugg xaal dafa dugg xaal tey déedéet dugguma xaal de maa ngeeg suma xel ak suma ràññee te li may wax xam naa ko waaye dama bëgg li leen amal jëriñ ëllëg te loolu lépp nag yéen a ko amee ci ngir kii ngir papataal daal moo tax dem naa nuuru fu ne kenn ku xewle ci yéen dem naa fa ndax mas naa wax li ma wax tey pastal man de masuma ko dégg kaddu boo gis nag kaddu boo gis ngir kii moom bés moom la moo ko yellu loolu mooy loolu mooy mooy papitaan jërë ngeen jëf bu ëllëgee nag yéen setu Cheikh El Hadj Omar yi jéggal naa leen lu waaye jéggal naa leen bu ngeen bu ngeen demee daal ba wéet ak seen bopp wala seen i naw le suñu ah, bàyyi tey li mu wax tey ah, tey tey tey tàgg na xas na xasuma neen manti neen a dama leen ah dama leen a waar mm-hmm. sant ñi waar ñi eh, gi ngir bëgg nag ngir am njëriñ njëriñoo loolu rek la loolu de kon bu nit xamee ràññee dëgg xelam mun ko jël xelam mun jël loolu ci yàlla ak yonent bi ak seen barke maam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ku amul it maanaam eh, maanaam xalaat. ku ku amul it xalaat. Eh, mënuloo mënuloo dëgg-dëgg wax ji mu amoo ci dëgg-dëgg. du du ne du sa mbon de. ne ñàkk dëgg la rek. ndax maanaam eh, ne la. sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wax yu daan na wàcc ci moom. am na ay kaddu. ay ci arab. bu ñu bu ñu ñëwee wàcce mu mu mu mu ñàkk ko comprendre xamul kàddu yooyu. yàlla ne ko da ngay seet. yàlla ne nag da ngay seet nga wër ci àddina bi da nga gis yenn arab ya nga xam ne daañu wax kàddu yooyu ñu tekkil la ko. yenen yonent bi lañ wax li am na ndagam yonent bi lañ wax li ana saxatuma kenn te moom te moom mooy lépp nag. faamu faamu foofu addina. dëgg dëgg addina boo gis. ci li ko dalee ci sunu maama Adama. ba ba addina di jeex. ba nit ñi dugg ajjana. xam. ak dëgg-dëgg. yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu. waaye yàlla jàngal nañu rek. bu nit buñ ko waxee. bu ñu waxee mbir am ñu am dëgg-dëgg ñu ci dëgg dëgg dëgg boobu ñu dëgg ko bu baax a baax am ci ne li doon seen njort xëpp tuddi dabaat ci seen xal ñu mu ñu dabu mu dabu ci seen xel ñu capté ko capté ko français day day manqué la maanaam li li sëriñ li mu leen wax borom xel ba day jëli wax ja jàpp wax ja am ci dëgg-dëgg am ci jëriñ fekk na du mbonam de wa ma minna illa lahu maqaamun maalumun ku ne fa la yàlla tollal fa nga toll rek kon nag jéggal naa leen surtout Cheikh Oumar ak doomu soxna yi ak doomu soxna yi ma teg ci nag ma teg yi ñooñu laa leen di dóore laa leen di duma sharif bu ñu baaxee addina bi baax bu ñu baaxul adduna yàqu na foofu laa mën a yem kon kon naaw xas naa shérif yi daanu naa ci seen kaw ah, yéen seetu Cheikh Oumar yi nag ma bàyyi leen noonu mukk ah, ah. ana seen maam lu mu am lu dul yonent ana seen maam Cheikh El Hadj Omar lu mu am lu dul Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñunun añunu ni amuñu lu dul moom kon nag su ma daane ci kaw surafaaw yi ma wax leen ma wax leen yéen bu ngeen amee xel yéen bu ngeen amee xel da ngeen war a sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamin ida duriba al imaamu xaafa al muazzin imaam ba daal buñ ko ne tëll aw yet kaay nadd war naa dellu gannaaw <laughs> bu dul loolu yet wa ca moom la jëm kon nag jërë ngeen jëf jaaraama jaaraama ñu jàng fatiha salaatul fatiha ñetti yoon yaa latif juróom-ñeenti yoon ñu fasaale ci yàlla nu yàlla jéggal yàlla nu yàlla yombalal sunuy aajo yàlla nu yàlla may barke cheikh alhaaji omar al fuuti radiallahu taala anhu yàlla na nu yàlla may barke sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan lii nu wax yàlla nu yàlla may ñu am dëgg-dëgg bi yàlla nu may am ci dëgg-dëgg buñ ko amul buñ ci amul dëgg-dëgg yàlla na nu yàlla may ñu taataan ko ak am ci dëgg-dëgg yo yalla wata allah waddu en wa man arada an dicri fa inna lahu maicatan dankan wa nahshuruhu yowma alqiyamati ame qaala rabbi lima hashartani ame wa qad kuntu basiran tax nga def ma gumba tama doon gis yàlla bu ñu yàlla boole ci ñooñu ala kadalika atatka ayatuna fa nasita wa kadalika al yawma tus da nga dëgg rek da nga ma wax aay da ko wax nga dëgg sa nopp nga fàtte ko nga dem def loolu yàlla nañu yàlla musal ci ñooñu yàlla buñ ci yàlla boole bismillah fatiha benn ñetti firu salaatul fatiha ya latif juróom ñetti yoon